welcome back to Star TV uh, Flash Sport uh, programme bu nga xam ne far na ñëw Tuesday uh, fii lii di kër ji mu nekk programme bu nga xam ne rek ñëpp di far di ko xaar ñu leen indi lépp lu nga xam ne rek muy ruuse si wàllum di tàggat yaram tey nag si biir lii di Flash Sport lu ñuy wax mooy exclusively Gambia versus Mali tey loolu moo nekk ama um, programme lii di Flash Sport benn tey ñu dem xoolee lii di headlines yi dellu si fii si biir lii di um, nag si biir lii di headlines yi dinañ xool Gambia national team bu biir lii di Morocco eh, di waaj nag pour war a dem foofu si biir lii di Mali eh, Mali la ñu war a playal eh, ñoom it jamono bi seen players yi ex nañ foofu si biir lii di Mali ñoom it bi di waajal di bi nga xam ne moo war a xew diggante Gambia ak lii di a pour rek dem lii di support lii di ndaw yi ah, foofu si biir lii di Mali ah, ñoom it dinañ ko bàyyeekoo tey fi si biir lii di réew mi ah, benn tey maaj bi nag Friday la diggante Gambia ak ñii di Mali match bi nag Friday la moo doon foofu si biir lii di Mali match bi dina nekk 7. 7 euh, euh, pm euh, foofu si biir lii di Mali la match boobu di war a xew diggante Gambia ak ñii di Mali jamono bi gis nañ ko si Mali seen officiel Facebook page bi ñoom nag war nañu match bi 7 la foofu si biir lii di Bamako benn tey dinañu xooli kii di Chuka mu nga xam ne jamono bi dafa mel ni moom moo gën a yëngal lii di social media bi jamono bu xam ne kii di coach Tom tànn na lii di tiimam bi war a dem jàmmaarloo ak ñii di Mali foofu si biir lii Mali dinañ si indi yaatal benn tey dinañ xool kii di Youssouf Ndiaye mu nga xam ne jamono bi dafa sosté lii di injury euh, loolu moo tax sax moom mii di Youssoupha Ndiaye euh, muntaan nemmeeku euh, important match bu nga xam ne Gambie war nañ ko am seen diggante ak ñii di Mali benn tey kii di Bambalay mu nga xam ne moom moo am late call off pour replace kii di Youssoupha Ndiaye foofu foofu si biir lii di Mali diggante Gambie ak ñii di Mali moom mii di Bambalay jamono bi mu ngi foofu si biir lii di Morocco kon nag ñu dellusiwaat fii si biir lii di kër gi ak Flash Sport sport euh, ñu dem xool nag Gambia national team bi euh, jamono bu nga xam ne nag ndaw yi euh, bàyyeekoo nañ seen clubs yi foofu si biir bitim réew benn tey tamit gis nañ délégué bu nga xam ne mu bàyyeekoon fii si biir lii réew yi Gambia ñoom it nag eggoon nañ foofu si biir lii di Morocco di baaj bu nga xam ne nag mu war a jógee ko foofu si biir di Europe war a nag daje foofu si biir lii Morocco jamono bi gis nañ ne national team bi tricota bi yëpp jamono bi egsi nañ foofu si biir lii di ama Morocco ba na ne def nañ seen ama ndéwo bu njëkka di Morocco pour rek euh, waajal euh, lii di euh, préparation mu nga xam ne nag war nañ koo am balaa ñoo dem foofu si biir lii di Bamako ndig ne xam nañ ne force leg bi foofu si biir lii di Mali la foofu si biir lii di Mali 7 o'clock la Friday national team bi nag na bàyyee ko foofu si biir lii di Morocco dem foofu si biir lii di Mali pour waajal lii di match boobu very important crucial game bu nga xam ne war nañ ko am suñu diggante ak ñii di ama Mali foofu si biir lii di Mali ba tax na jamono bi comme ni ñu ko gisee rek ndaw yi tey nag am nañ seen breakfast Euh, foofu si hôtel bu nga xam ne nag foofu lañ dal euh, foofu si biir lii dem Morocco euh, pour rek di waaj foofu si biir lii dem Mali benn tey bu ñu bàyyee ko foofu tamit nañ na xool yi nga xam ne ñoom la ñu war a pilal mooy ñii di Mali Mali ñoom it nekk nañ ne jamono bi gis nañ nag bi mooy Mali Football Federation bi ñoom nag seen ndaw yi jamono bi ex nañ foofu si biir lii di Mali ba tax na sax gis nañ ne ñoom ñii di ama team bi jamono bi ñu ngi loj ñoom it foofu si biir lii di hôtel bi di waajal nag seen wàllum lii di préparation bi pour rek ne xaar lii di équipe bu nga xam ne nag mooy national team bu Gambia euh, dem foofu si biir lii di Mali pour rek war a jàmmaarloo euh, diggante Gambia ak Mali euh, bu ñu réelewul mbir ne Mali ñoom ñoo topp lii di groupe bi am lii di three points jamono bi Congo am lii di three points South Sudan am bi foofu si biir lii di Bamako second leg bi nag dina nekk foofu si biir lii di Morocco jamono bu nga xam ne nag Gambia Independence Stadium bi benn tey parewul parewul pour rek mu war a mun a xoos lii international match fii si biir lii di eh, réew mi ah, benn tey bu ñu jógee ko foofu noonu ñu dem xool lii di Scorpion fans club bu nga xam ne jamono bi ah, bàyyeekoo nañ tey fii si biir lii di ma réew mi ah, pour dem foofu si biir lii di ah, am nañ Bamako ñoom ñii di Scorpion fans club bi jamono bu nga xam ne nag jot nañ xibaar bàyyeekoo seen PRO bi war nañ nag dinañ fi bàyyeekoo tey fii si biir lii di ma réew mi dinañ egg si foofu si biir lii di ma Mali on Thursday dinañ relax su nag Friday mooy nekk lii di crucial match bu nga xam ne nag ndaw yi war nañ koo mun a am ah, bu ñu réeré woon mbir ne ñoom ñi di Scorpion Fans Club bi ah, demoon nañ foofu si lii di ama ah, dem dooleel lii di Scorpion Scorpion Fans am noon nañ fa ay ay médailles yu bëri yu nga xam ne si wàllum li seen man-man ak pas-pas bu nga xam ne wane nañ ko pour rek li support lii di national ama team bi foofu si biir lii di Cameroun tey nag ñoom ñoo dem tamit dem tàccu lii di ndaw yi foofu si biir lii di Mali foofu si biir lii di ma capital city bi ñu woo ko eh, ñi di a Bamako benn tey buñ bàyyee ko foofu noonu Euh, lu nga xam ne tamit jot nañ ko euh, mooy ne officiel yi maaj bi dina play on Friday 7 euh, pm foofu si biir lii di am Mali diggante Gambia ak ñi di Mali loolu nag dina nekk maaj bu nga xam ne it's a crucial game for Gambia must have must win game for Gambia si benn si yooyu noonu pour su fekkee ne bëgg nañoo sikki yoo pour rek mun na dem foofu si biir lii di Ivory Coast 2023 lii nag nekk na lu nga xam ne dina tombé si biir lii di weeri bi. Ah, waaye nag ndaw wi euh, ñoom nag nekk nañ ñu nga xam ne miin nañ di play lii di European football si biir lii di weeri koor bi euh, kon nag lii du nekk euh, tolof tolof si kaw lii di ndaw wi foofu si biir lii di Bamako match bi nag ne dina nekk 7 pm foofu si biir lii di lii Euh, foofu si biir lii di ma Bamako comme que ñu ko jotee rek foofu si biir lii di Mali euh, seen football fédération page bi euh, foofu si biir lii di Mali benn tey ñu dem xooli beneen ndaw bu ñuy ooyee kii di Cuka Cuka na nekk ndaw lu nga xam ne jamono bi yëngalu na bu baax a baax lii di social media nga xam ne nag taskati xibaar yi fans yi ñu nga xam ne jamono bi ñu ngi toppali di national a team bi ñoom nag wanoon nañ ne Cuka nag nekk na ndaw lu nga xam ne amoon na place si national ama team bi euh, jamono bu nga xam ne moom mii di coach Tom nag am na ñu nga xam ne taana na leen euh, yóbbu leen foofu si biir lii di crucial game bi am na su ñu nga xam ne euh, amuñ benn playing time si seen ama club am na ñu nga xam ne ñoom nag dañ dem li di trials si seen club si am na ñu nga xam ne doorawul ñi di play te moom mii di Chuka nag nekk ndaw lu nga xam ne gis nañu sax play woon na si UEFA conference ama ligue bi seen diggante ak ñi di Basel benn te muy play si ligue bi foofu si biir Slovenia moom mii di ama ne ñaari réew yi mooy Gambie ak ñi di Bissau euh, suñ farekuloo euh, ñii nekkoon nañ ñu nga xam ne soxloon nañ kii di ama cuka bu baax a baax ndég ne Bissau euh, nekkoon nañ réew mu nga xam ne saa yu Gambie ooyee ñi di cuka Ah, si suñu 25 man squad bi far nañ tamit di gis ñi di Bissau oo kii di Cuka seen 25 man squad bi ah, moom mii di Cuka nag ah, bi nag gis nañ kii di Cuka moom nag ne lu mujjee def mooy bàyyi li di passeport Bissau bi jël li di passeport bu nga xam ne mooy réewam mooy réewi Gambia waaye nag ne jamono bi askan bi nag gis nañ ne moom mii di Cuka nag dañ ko delloowul lii di njukalam naam ne sax ne mu ngi play football week in week out foofu si bëri la di Europe ba bi moom nag ne askan bi wana nañ ne amoon na pas-pas bi pour war a mën a bokka si team bu nga xam ne moom la koo Tom oo oh, yóbbu foofu si biir lii di Mali ah, benn lu ñuy ñaaw leen ko mooy ne ah, Tom nag jamono bi war naa xam ne respect bu nga xam ne war na koo jox lii di équipe national sorry national team bu Gambia bi ah, nit ne national team dafa am merit nooy tànnee lii di ay players kon nag ne na toppal loolu indil ñu ndaw ñu nga xam ne ñu ngi play football week in week out am li di playing time si seen club nit ku nga xam ne amul playing time nit ku nga xam ne amul club kooku wax dëgg fa yàlla doomi Gambien la am na right pour play waaye nag ni ne euh, mérite ko pour war a mën a play su fekkee ne ñu ngi xool si wàllum lii di statistics ak nag lii di playing time euh, si si national team euh, yaakaar nañ ne du Gambia rek réew boo dem loolu la ñuy tànnee lii di player Ah, bu ñu bàyyee ko foofu nañ dem xooli kii di Youssoufa Ndiaye ah, mu nga xam ne moom it bëri na lool ci social media bi ndég na Youssoufa moom it géejoon naa ñëw si national team bi moom ak kii di Ali ak kii di Alassane ñu ko xam ne kii di Moru waaye nag Youssoufa Ndiaye ah, gis nañ kii di coach Tom ko xam ne nag moom la ñu doon play foofu si lii di Portugal moom it di Youssoufa Ndiaye nag lii tax na nag mënta ñëw pour rek ne defend lii di national column bu réewi ama Gambia foofu si lii di Mali ba tax na lii di euh, speed recovery euh, foofu si biir di Boko Fista foofu si biir lii di ama Portugal fu ñu daanee rek mooy euh, ndaw lu nga xam ne moo remplacé kii di Youssoufa Ndiaye ñu gën ko xamee kii di ama Abdoulaye Sanyang ñu koy ooyee kii di ama Bambalay moom mii di Bambalay di play foofu si biir lii di Granova foofu si biir lii di France si Ligue 2 moom sax nekk na ndaw lu nga xam ne bokkutoon si ñu nga xam ne nag Tom ooyoon na leen pour rek ne ñu war a dem si 25 man squad bi waaye nag moom mii di Bambalay gisoon nañ ko si 32 man squad list bu nga xam ne moom Tom Tom is woon na loolu fii si biir lii jéema réew mi waaye nag ne si final 25 bi gisuñu woon kii di bambalaay euh, béy bañ njéeg ni nag moom mi di bambalaay nag mu ngi bàyyeekoo foofu si France euh, di jubal foofu si biir lii di Morog euh, li ko waral mooy inform striker bi mooy kii di Youssouf Ndiaye dafa sustain lii di injury moo tax nag ñu gis kii di bambalaay moom nag ñu boole ko si national team bi jamono bi war play against ñi di Mali on Friday 7 pm foofu si biir lii di ama ko kon nag nañ ñu wis leen good luck bante ñu xaarandeku di leen jox moo update si suñ TV Facebook page bi euh, dinañu jox moo update lu nga xam ne rek mooy xew foofu si biir lii di Morocco war tamit lu war a xew euh, foofu si biir lii di euh, Mali kon nag ne lii lañ amoon fii si biir lii di Star TV Flash Sport ñu gërëm kii di Basirou mu nga xam ne rek moo ñu jàppaloon si machine bi jërë jëf